màggalu ren gi aussi képp kuy observateur seetlu nga ne nit ñi bëri nañ trop mais aussi dañu teel a ñëw ba pare xaw a yéex a euh, xaw a yéex a dem donc ce qu'il faut retenir mooy déploiement de ressources humaines vous savez que ci état bi moom ci boppam 5700 euh, agents la déployé woon def 187 postes médicaux avancés te loolu mooy permettre une médecine de proximité pendant la màggal def ko ci les zones stratégiques yi ñu ñëw unité bi renforcé ko par ses par ses partenaires résultat yi covid bi boo xoolee en fin de compte ci biir màggal gi ah, non seulement amul woon problème mais màggal gi amul ci benn njeexit quinze jours avant le màggal ñi ngi woon autour de neuf cent cas bi màggal semaine màggal gi ñëwee ce chiffre a été divisé par trois ñu nekk ci trois cent cas autour nga defaat quinze jours après ce chiffre a encore été divisé par trois ñu nekk ci cent cas jours après le màggal kooku moom boo ko analyser sur le plan épidémiologique doy na pour ne màggal gi comme daaw wala même de manière plus prononcée que daaw amul benn njeexit ci évolution Covid bi au Sénégal si on regarde seulement chiffres épidémiologiques yi boo xoolee aspect scientifique bi ñun nag chiffres yi ñuy wax ce sont les chiffres officiels kooku moom lu leer lañ dañuy dem à la source chiffres yi nga xam ne ñi yor Covid bi moom la ñuy publier chiffres yooyu la ñuy jël étudier ko analyser ko sommer ko génne ko te kenn du ci laal dara donc màggal gi amul impact boo xam ne dafa feeñ ci Covid bi lawalu ko. li ñu do li ñu mënoon xaar nag mooy mu lawal ko c'était légitime ñu xalaat ne da ko war a lawal mais lawalu ko fenn ci Sénégal may insister ni chiffres yooyu aussi ce sont les chiffres au niveau national du chiffre Diourbel parce que daa bi biñ ci communiqué ñenn ñi dañu foogoon ne région de Diourbel la wala Touba non c'est le niveau national parce que loolu aussi lu ñu étudier scientifiquement la ak comité d'organisation l'étude a été faite euh, il y cinq y a quatre ans précisément xam nañ gox yi nga xam ne yëpp fa la nit ñi di jógee di màggal si mais aussi gox yi ñuy gën a jóge pour màggal si xam nañ ko mooy dakaar Thiès ak Diourbel mais nag ñun niveau national bi lañ xool donc amul benn cas de Covid bu ñu échappé quinze jours avant la màggal 15 jours yi wër màggal gi 15 jours yi topp ci màggal donc chiffres yooyu c'est des chiffres avérés vérifiables qui montrent que màggal gi favoriser wul propagation Covid ici au Sénégal contexte Covid bee tax ñu ñuy wax ci Covid bi lu bëri mais màggal gi en réalité ñun bu ñu jëlee chiffres te lool it collecté nañ ko ba pare dañuy gis ne période du consultation bu xaw a sakkan daaw daal ñuy woon ci vingt et un mille consultations recensées officiellement am na ci quelques-uns ñuy échappé c'est normal parce que benn daayira bu installé. benn antenne am ko am na yu muy def ren nag déploiement yooyu moo tax one est à 31 000 maanaam euh, fanweeri junni ak benn malade yoo xam ne consulté nañ leen xam nañ sax pathologie yi leen gën a indi te gisuñ ci woon benn pathologie buy génn yi ñuy gis maanaam feebar yi ñuy gis bu nit dajee lu bëri. daje yu mel na màggal wala sax yu eggul ci màggal c'est loolu la ñuy wax les pathologies communes de manière générale mooy ay problème mu respiratoire nga sojog yooyu ñëw mais surtout ay problème digestif bari woon na ci ñoo xam ne it dañoo amee tension wala jabet ñëw surveiller wuñ seen régime mu yokk tuuti amoon nañ ci mais surtout contexte nawet bi ak tàngaay bi fi amoon li wër màggal gi jour màggal gi sax tane na température bi woon na mais li ko jiitu bis bi ko jiitu ak bi ci topp dafa tàngoon trop mais aussi nit ñi li ñuy rang tax na li ñuy wax insolation maanaam les coups de chaleur xawoon na ci bëri loolu moom képp ku doon consulté ci màggal gi seetlu woon nga ne ñi doon miir ak ay bopp di metti parce que dañoo yàgg ci soleil bi ci tàngaay bi ñooñu ñoo ci ëppoon donc Covid ëpp ci woon du tout yi ci ëpp mooy yi nga xam ne dañ koy gis bu nit ñi dajee ci période du tàngaay te ñun li ñu seetlu bien avant le màggal décrire ko ci suñu document yi mooy le 11 août la ñu defoon ñaan yi wàcc kaamil journée du xasida le quinze août le chiffre Covid yi commencé di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku progressivement ba gis ngeen chiffre yi tey loolu moo tax malgré nit ñi doon jaaxle gis ngeen ci ay article parce que journaliste ngeen am na ay ay journée ay. ay revue internationale yu ñëwoon alerte du ma ci cité mais liir jën leen ñun tamit liir nañ leen bu doon wax ne c'est un màggal à risque am na ci ñaar yu mag a mag yu ñuy liir partout la moon monde waxoon nañ ko mais ñun bi ñu seetloo chiffres yi fa mu commencé baissé nee nañ ñi foog naa lecture bi ñu am ñun ci épidémiologie ak màggal gi ak mobilisation communauté mouride ñoom amuñu ko léegi nag ñu ngi leen di chiffres yi c'est à leur disposition euh, foog naa dinañ ko liir dinañ xam lii ñoom li ñu prévoir woon bokkul ak en de compte li am di ci sant yàlla di ñaan rek euh, résultat bu mel ni continuer et que déwén sax yaakaar naa dinañ nekkaat ci yeneen préoccupation mooy yi ma wax léegi les problème alimentaire les problème de chaleur les problème d'eau au lieu ñuy nekkati ci problème mu mbas